bi nu jox Bougane Gueye Dany uh-huh. xoolal lii waaw yenu na mboq xoolal yenu na mboq mi de kii day jo ah, ah, même par exemple yi da koy indi dugub rek la daa am dugub partout dans le monde dañuy utiliser dugub <laughs> te Luc Luc li lay laaj mooy Luc Luc wuyul alaaji Papa Dieng waa Luc fi mu nekk lépp war na ah yaa ah, ngi ci reportage yow. ah bi. ñoom wax ak ñoom. su paree ay juge am. rëg-rëg avertir nan ko benn avertissement. waaw dafa xëppe gàllaaj. dafa xëpp gàllaaj. te règlement da koy tere. arbitre bi sifflé rëg rëg-rëg ngi dox di dem ci rëg-rëg. non du xaar ci sa kaw la jëm bekaay. Reug Reug Gris 2 Gris ko sëkkatal Gris 2 confiance la bëre tey Gris gi sëkkatal Reug confiance bëggul may Gris round d'observation est-ce que laajul woon round d'observation non non waa dem latéral mais boo arrière da lay sëkkatal voilà mi ngi ñëw mi ngi doog a ñëw mi ngi a ñëw bekaay daa mel ni dégg na marche ci kawam di ko xaar <laughs> rëg-rëg Gris 2 waaw sànni na léegi tooñ na ko waaw loolu ko def déplacement mu sëkkatal ko bekkaay rëg-rëg sànni na def Gris 2 dër na déclenché na bagaar xeex Gris 2 rëg-rëg jàppante ñoom ñaar jàppante nanu rëg-rëg jàppul benn Gris rëg-rëg

ñu téye de dégg ñu ne Bécaye dañu ci calcul la ñu ne. waaw. Reug Reug Gris 2. Gris 2. ndeysaan. Reug Reug. rek lay bari la bu amaatee bu mel noonu du baax de. oho téere yaa ngay lang. ñu que TNT. gis Maodo demoon na. Reug Reug Maodo jàpp na Maodo it est ce que gémmiñam naccul. waaw moom dafa mel ni de. Reug nga koy peese mu ngi koy peese Reug Reug nga koy peese. waaw da doon peese. muy uh-huh. mel na ni gis na ni mën na dem de. bu ko defaatee am dara de. dëgg la Maodo sax warul nangu loolu. day xaar ndax action bu amee sa poids day dem. fi la yóbboo da dem. da ngay dem action bala. action bala moo lay yóbbu. te action bi dafa mel ni rëg-rëg mën na ko. ndax dafay mel ni dafay fekk nga nekk en déséquilibre. en déséquilibre. waaw ah, sa benn tànk muy tenir bi si des lay jóg. dootan sa poids da ngay dem. di gi ci changement yu dëpp yi ci la rëg-rëg di calculer combat. <laughs> ci bouge Billy bouge. waaw ah, ah, ma koy jéem a alors. waa arbitre c'est le terrain bàyyi leen ñu ñëw. ndeysaan. tey làmb Bécaye. arène baa ngi. macha allah. vert jaune rouge bi feeñ na. dañu rafet lool. ay kilomètres ngay doon wuti gàllaaj waaye léeg-léeg day mel ni 10 kilos. yenn saa yi nga sànni. walaay boo sonnee day mel ni 10 kilos nga takk. te fu ne nga dem. ba wut gàllaaj sëriñ bu ne seeti nga ko. ndeysaan woowaat nañu leen ñu nga boobu mooy action bi mu jéggi. mais mais mais Maodo mën naa. affaire bi arbitre bi la waan na. su Maodo diisuloon day dem Maodo diisaay moo tax daanuwul. waaw. attention. te Reug Reug day demaat de. parce que Maodo li problème na na xeex ak Reug Reug. parce que bu ko bàyyi mu réfléchir rek du baax. xam nga da lay méb door la crochet droite. moo tax su ko mébee gauche parce que. xam nga Reug Reug day na ko da lay méb gauche door la crochet droite. bu déclenché ko wax mën a dóor mën a moytoo ci baax. waaw bi mën na moytu na moytu na ba coup bi ku dalee lu baax. parce que Reug Reug tamit bu bëggee jàpp Maodo moom ci poids ak doole ba kaay day am complication. waaw ndax Maodo biir bee tax te digg li dafa sori te wet gi dafa yaatu kaar pour nga enveloppé ko du yomb. du yomb mais non non moom li mu ci man mooy nax ko daan. waaw mais du utiliser doole. waaw daal du sotti. bu utiliser doole du dem. du dem waaw nga dégg. techniquement la ko daan Reug Reug Gris 2. Reug Reug ngi ndeysaan ñu ngi téyante. Alaaji Papa Dieng. Uh-huh. Max Mbargane. waaw. géwél rek ngay dégg. walaay dëgg la bu tollee doo dégg géer. géer ñaa ngay seetaan. ak di mel si dugub. ak di toilette. woykat yi géer ñu géer ñu ndeysaan géer yi toilette noonu euh, ña nga ca kaw walaay dëgg la ndeysaan kas casque et gants fii la neexee woon ak ak yi ah ay grec beige ak couleur yi ak lunette yi gis nga ni ñu def rëg rëg di te mais wax nga dëgg ah xam nga fi ne dañoo sot woy wi laay laay la dañ koo sot xam nga sànq bi woykat yi woy doo dégg dara walaay dëgg la waaye léegi da ngay dégg bu baax ndax ñëpp nee nañ teg ñu ngi tëyante max mbër buur la dajal de lan la tëggal dajal de buur la koy tëggal tak jox la Senghor nga yor Senghor buur a ko daan génne waaw mais Bécaye day bëre talaata mu encaissé million ah. nga yor vingt mille jox ko jox ko ñaari junni yi rek yóbbu eh, eh, lay lay la laa daan na ko daan na ko jël bi rek yóbbu eh, lay lay la laa daan na ko daan na ko jël bi rek da ngay daan da ngay daan na ko da koy daan ndaanaan